tamis geeg korite saaw xool nag saaw ñu def dañuy récompenser xolal yalla dañoo worlo ba ñuy jeexal mu neexal ñoo hmm dañ nekkoon ci ben jaamu yalla bu sel bu ngeen paré jéxalé len ko lii def solidarité génne asaka mu dun koor génn dem julli ji euh, conscientiser nit ñi ba sax jigéen ñi yonent bi saa salaam même bu ñu gis seen mbax ya ñu nekk ci gis seen règle dañ di génnee même bu ñu julliwul ñu déglu ci xutba bi moy am ci tamas gi bi man malheureusement day ni ci kër ga di xol li sobi lek dem ci yenen kon tamas gi même chose buñu xolé ñu ngi jóge ci ndigal aj aj dañu nekk bi aj bi jeex lu fan ba ci après Arafat ma sha allah yàlla joxaat ñu fétu tamas gi moy ñu def rappel tamit ben gis pa gënte comme ni ñu ko waxé yonte yàlla Ibrahim bi mu di gis ne dafa war a rey Ismaïl Mm. loolu lañuy def ben anniversaire histoire bu yéme la ci ben famille bo xamné damay wax né fuñ tollu ni ci pëccoxoo kër yi yëngatu ni jigeen mm. yenn saa aw ma xar damay génn damay ñubi mm. xalé amuñu yéré man def guma amaguma cheveux naturel et cetera mm-hmm. fatte ko histoire gi le jour là da nga war nek ci sante ak ak ak ak ak ak pas da ngay am ragal yalla rek ak mbégte ngay bolé parce que bàyyi la won ak yaay ak dom mm-hmm. Ibrahim bi mu am Ismaïl fekk cent ans yi mat na te mu ngi koy doog am comme taaw hmm. yàlla bàyyi ko bi mu am quatorze ans mu ne ko demal rendi ko lan la bëggoon c'est pas pour rendi nit da ko doon teste xool ngëmam fan la toll doom ji par rapport ak man fan la toll doom ji ak fan la ma toll nga hmm. léegi nga am benn doom du bëgg ko walaat la la plupart boo am benn doom rek day nekk doom bi faral di reew noonu su nekkee yaruñu ko mais foofu la Ismaïl baay ne ko yalla daf ma wonne dama la wara rendi mu nangou ne bàyyi defal li lay wax Haajara tamit mu nekkon ben une femme noire ñu ñu ko femme noire yeb mm-hmm. parce que Afrique la jóge ñu may ko mam Ibrahim comme ñaarel sara ta mo nangou lo xam ne soxna yi tok jaakaar duñ ko nangou ñaarel may sa jëkër ñaarel la sara ta def yalla dogal ki mu may ñaari mu njëkk ko am doom mais yàlla fay na ko ko après may na ko ishaq ishaq moom la moo kere ci isaac mhm. isaac moo jur jacob moo yaqub yaqub moo jur yusuf mooy banu israil mhm. voilà après nag fële ismail moo fa nekk baay ji bi mu ko bëggee rey mu ne ko defal li ma la wax euh, mu ne ko defal lii la sa borom wax juste mu dem ci yaay ji wax ko ko yaay ji ne ko da ngay def lii la wax boo tax boo demee màkk léeg-léeg ñu ne la histoire u Mhm. bi muy dem di rendi ji eh, seytaan bi moo feeñu Ibrahima ne ko foo jëmee sa doom ji di ko jëm a yàqal mu feeñu Ismaïl naan ko xam nga fu sa baay jëm mu feeñu Xaajar ne ko xam nga fu ñu demee sa doom ji ñu leen koy sànni xeer xeer yooyu ñu ci histoire loolu la ñu wax quand même kon Thomas Guèye Ngok bi Ibrahima amee décision pour rendi doom ji nag ba teg paaka bi la yàlla yoon yónni Jibril ñu ne mu andil ko xar moom mu remplacer ko ci place maam Ismaïl kon sacrifice

kon mhm. pour wax la ne loolu moo waral mbir mi daal. d' accord moom la ñuy fàttali. alors mais tey jii comme ni nga ko waxee léegi kër yi jaxasoo nañ kër yi yëngu nañ. Mhm. tabaski ci boppam. Mhm. oustaz su ma doon wax kan moo ko war kan war a tabaski. waaw tabaski ki ko war a def mooy ku yor njabootam. xam nga saa waaw maanaam ku yor njaboot borom kër. borom kër nag ni nga koy déggee tey ak ni dëkkee ak ni saxaaba yi dëkkee bokkul parce que dañu la naan la dégg na am ñu naan sax bu nekkee paa baa ngi fii man ak yow nekk fi comme frère ñu am suñu jabar bàyyi mën na rendi mu baax ci ñun non c'est-à-dire chaque borom kër. képp ku am jabar. voilà bu amee soxna te nga mën ko. Ah, réel mën ko. du question yàq wala ay non non non bu ñu xoolee ni ñuy def yàpp rek ñu xam ne du yàq. parce que hmm. nii dañ dañu jàpp yàpp yi pour ñoom la mais pas pour ñoom moment yi ngay rendi yàlla xoolu duufaay xar bi ngand naag béjjën yi ngand naag yooyu yitteelul yàlla. Ah, mais mais nee nañ ne dégg naa ñu ne xar bi lu mu gën a rëy gën a baax Euh, te mu bañ nekk puukare. ok naa la may nga jënd xar un million mais du ma la baal su nekkee kër yi nga dend ak ñoom loo leen xar. oui parce que booy boo nekkee ci dëkk buy ñëpp di doxee carax boo solee dàll yu mel nii. Mhm. da ngay def bàkkaar sinon nga jëndal ñëpp yu xaw a niiroog yii. pour wax la mhm. ne c'est-à-dire pour il faut nga partager doog a jënd yenn somme yi. d'accord. comprendre nga. comprendre naa kon loolu da koy dégg ci diine diine bëggul ne mën naa ko dinaa ko def no da ngay xool ñi la jege. Mhm. est-ce que ñoom parce que suba boo leen dimbaliwul haine commencé na dugg ñenn ñu bari ñooy créer haine ci seen wet yor bañ a dimbali nit. naa jox benn affaire booy bu dàq agressé fii boo ko doon dimbali. Mhm. bu lay agressé mu tombé ci moo lay sauvé. moo lay sauvé. bu la xamee naan bàyyi leen grand bi parce que grand bi saa waroo ma ci koñ bi may ko ataaya mu toog ataaya. waaw pour wax la ne solidarité boobu nit dañ ko war a bàyyi xel ba ñu partage yàpp yi ni ko yonent bi saa sana waxee mooy trois parties bii ñu lekk bii ñu saraxe bii ñu denc bu ñu defee xar yi noonu est-ce que xar dina des. du des te nag njëkkal génnee sarax si nga génnee looy lekk doo xalaat looy denc denc moo mujje noonu lañ koy séddalee. tabaski ci xar yi rek lay yem. Euh, wala lu ñu mën a tabaskee. waaw non mën nañu nag xar bu jigéen béy béy bu jigéen noonu lañ ko tegalee gis nga nag. pour nga xam ne yàlla yu ngan na yitteelu ko xar la commencé te mën a gëlëm ci la bokk ak nag nag moo gën a gën a ngan nag sax la ñu maye ñu cotiser pour nag mais mën nañu cotiser pour xar bu ñu nekkee ci kër gi. Ah, xar kenn mënu ko cotiser non non mën nañu cotiser. kenn mënu ko leb tamit. kenn leb ah kay mën nañu leb. Hmm. mais na fekk nga mën a fay. oui parce que bu leen nangu bor fekk leen ci ginnaaw timis gi ba police di ci fekk. Mm. oui dañu leen ne amoon yére bu taaru man ko jaay jënd xar sax demal jaay ko jënd xar. oustaz foofu nag ñi dañ euh, ko leb naan mën na koo leb. bien sûr mooy lan lépp question jënd jaay la rek kon kon ñu bañ lépp oto cest à ci leb bi rek mooy lan leb bi bul lor ki ngay leb. su ko neexee nag mu andi xar bi ne ko maa ngi koy jaayee cent mille léegi bu naree dem ginnaaw tamit gi cent dix mille euh, loolu nangu nañ ko ci essence bu nekkee xaalis laa ak dara mais bu nekkee xaalis a xaalis dañ koy xaraamal maanaam mënuma jot dix mille ma lay fay dix mille cent franc mais su nekkee xar la mën nañ ko leb soo yaakaaree fay amul problème mën nañ ko leb d'accord mën nga ko leb parce que am na ko ne xaalis bi disponible lul surtout moment yoor yi sori nii mhm. am ñoo ne li ñu yoroon feeku kii lekk nañ ko ah mhm. voilà kon ñoom dañuy xaar salaire bele voilà kon ku jàpp ne mën nga leb nga fay def ko parce que sacrifice bi jamu yàlla la go xam ne xoolal saa war xar kawar sak kawar tu yàlla la kawar bu nek ci xar kawar xooleen xar wi ngeen gis ndax man ngeen wàññi kawar yi sax kawar la kon célibataire sax woron woron dem wuti xar rendi ko ngir am tuyaaba célibataire yéen ngi ayca <laughs> oustaz <laughs> oustaz tey jii boo seetee Sénégal nga xool ni ñuy tabaski par exemple wax nañ ko léegi jënd xar togg yu bëri yàqate xaalis bi sañse si ba kër yi di jaxasoo mhm. est-ce que nu ni mel loolu la ko suñu borom santaane waaw damay dellu sànq ci partager yàpp yi bu ñu ko defoon rek du ñu am problème mu yàq way parce que naa la benn affaire ci musulman yi ngay gis seen religion moo gën a bañ yàq musulman ñoo dàq yàq sax le chrétien mhm. même ci solu sax ñoo gën a yànj le chrétien c'est-à-dire c'est pas du ñu set comme ñun mais boo xooleen valeur musulman bi li mu sol wala musulman bi li mu sol te yenn saa yàlla bu mu nekk pour tiitaru kenn nag bañul seen sorière bu rafet ankay ah dañoo bëgg bu la yàlla joxee yu rafet nga sol ko sant ko ci kenn du tuumaa yàlla mhm. yàlla du la may xaar nga nekk fii torox lu mel ni dara mhm. mais nag bul ëppal moo tax yonent bi ne lekkal naan solul ci lu dul ëppal ak tiitaru uh-huh. moo tax sa yére bu doon buubu nii te tiitar a tax mën nga ci dem safara jigéen la ñu may sax yéreem di buubu lu mu romb rek mën na set du amati benn sobe uh-huh. kon bokk lekk bi buñ ko partagé yàq amatul dañ ko dul partagé bu ñu partagé seet ñaata nit. ñoo ñàkk Sénégal partagé moom foog naa ci tabaski moom xanaa waruñ ko mën a euh, quand même reprocher sénégalais yi ci tabaski parce que gis nañ xar yi booree saam yóbbu kër diw. Euh, waaw añ bu jotee aussi def ci bool yóbbu kër diw loolu. partagé la non non loolu boo xoolee la plupart euh, yàlla fekk ñooñu amuñu xar bi pare. justement oustaz doguma la loolu laa bëggoon wax ba ñun la plupart ñun ni ñu koy defee mooy tànk bi jox ko njëkk beeg jox ko peccor go beeg jox ko nàngam nekkatul partage partage bi mooy man man man néew doole yow mbañoon nga rendi sa xar xam ne xëll ne man boo demee sax du ma añ nga yónnee ma mhm. waaye pas pour njëkke beek pour kii beeg pour bi balaa ñuy rendi xar mi sax daanaka sédd nañ ko njëkk meeg euh, bàjjen yeeg boppu bàjjen ak tànku njëkke tànku njëkke yooyu juraat problème ci famille